nuyu ñëpp siyaar ñëpp jox ñëpp seen wàccuwaay euh, di leen bëggee nag euh, di ñaanal ñëpp jàmm suturo wér wér le euh, niñ koy defee rek saa su ne seen émission tribunalu arbi bi kër géwél yi ëttu saa su ne ndaanaan bi ñu leen di présenté ndaanaan bi ñu leen di wan ndaanaan bi nga xamante ne moom lañ leen di invité tegal leen ko ci kaw table bi waxtaan ak moom ci showbiz ak li xew ci réew mi euh, tey nag ndaanaan bi ñu am fii muy doomu parcelle di sotu géwél di doomu géwél géwél ci nday géwél ci baay ñu fekk ko nag fii ci parcelle ci këram muy koo xamante ne ni kenn dootul laajteeti mooy kan dañ koy bàyyi mun nuyoo mu présenté wax mooy kan après ñu dugg ci émission bi ñëw ci waxtaan bi euh, Talla ñu ngi lay nuyu. yeah mais maa ngi leen di fay. Mhm. maa ngi nuyu sant yàlla di gërëm ci yonent bi di gërëm sama ñaari waajur. Mhm. di nuyu kër kilifa diine kër kilifa mhm. di nuyu sama sëriñ sama yaay. mooy sama wasila moom laa def sama njëbal. mais maa ngi nuyu ñëpp. di nuyu Sénégal di nuyu àdduna. di wax ni maa ngi leen dalal jàmm. seet nga sa frère. waaw. dëgg la frère seet sama frère. dëgg la kon donc tey. dëgg la c'est famille. waaw ñu wéyale rek. Mhm. dugg ci waxtaan bi. Mhm. voilà ñu wéyale dugg ci waxtaan bi mu mel ni que euh, dafa am loo xamante ni ci laay dooree. Mhm. parce que dafa am ñu nangu ñu nangu ndogal am ñu nanguwul. Euh, am ñuy wax ne géwél am ñuy taxaw ne géwél amul. am na ñoo xam ne nee géwél amul bëgg lu yomb la. ne géwél amul bëgg lu nooy te histoire géwél dafa am parce que dañoo judd fekk ko fi. Mhm. ñun ñu nekk ay doomu géwél. ñi nga xamante ne ñi ngi wax loolu te xamuñu lan mooy géwél ak lan mooy rôlu géwél mhm. est-ce que doo ñu ñëwal ci loolu tuuti expliquer ñu mën a comprendre. waaw dañu santaat. Mhm. Euh, danga ma laaj laaj bu am solo. u te li ma laaj naa ci sawar a tontu. gis nga ay géwél. géer. joolaa bambara tukulóor. saraxule. yooyu yëpp existé wu. amul. xam nga lu existe mhm. maanaam ñun ñëpp benn nañ fa yàlla dëgg la loolu moo existe mhm. mais maanaam peut-être fa ñu wut ay xàmmeekaay waaw pour maanaam ñu ay joolaa lañ ñu mhm. ay géwël ñu ay séeréer ñu tukulóor pour mu am xàmmeekaay parce que xàmmeekaay mënut te ñàkk dans la vie tey boo xoolee ci l'islam tur moo am mais sant existe wu dëgg la ci côté l'islam dëgg la charia am dëgg la dañ naan diw bu juddoo nañ ko jox tur dëgg la mais déggoo nañ ko jox sant déedéet <laughs> voilà kon donc maanaam ay affaire géewul géer yooyu noonu pour man mhm. xàmmee kaay la rek loo ñu xàmmee kii ci xeet wi la bokk kii ci xeet wi la bokk mhm. naan amul mu ñooñu exigé wuñu ñoom ñooñu waaw ñuy wax loolu ñi naan géwal amul waaw ñoom exigé bokkuñu parce que géwal daa bokk géwal turu géwal am fu mu jógee mhm. fi mu jógee moom laa la bëgg a leeral waa kañ xam nga mooy géwal mhm. géewal mooy géewal mhm. loolu moo indi tur bi loolu moo indi tur géewal géewal géew ça veut dire woo ay nit dajale nit ñi ñëw nga def géew bu waaw gars jël ci turu géew boole ci wël bi. Mhm. mu indi gée wël. après mu signifié la ci ci ci ci ci mu sinifier géwél. Mhm. ça veut dire que géwél li li li mu ëmb dafa bari parce que li tax li mu ëmb dafa bari mooy tey da ngay xool. Euh, euh, yonent bi sax daa am ay géwal. sallallahu alayhi wa sallam dëgg la soo demee màkk am na ñuy tëgg tabala ya mhm. am na ñuy way di tàgg yonent bi. sallallahu ba mhm. tey tey ñun ñuy bokk ci xeetu yonent bi nekk ci Sénégal. Mhm. tey am nañ fi ñoo xam ne ay tàggatu yonent bi. dëgg la ku mel ni Moussa ku mel ni Père euh, Alla ba seeni doom tey ay Mouhamed Alla Diop. tey ñëw jël relève bi ay sàmm sàmm. gis nga. kon donc segam foofu la géwal jógee. géwal du fi jóg. dëgg la. te ku ko fi bëgg jëlee yow yaa fi jógee. Mhm. kon ngéwal seen ngéwal. dëgg la. ngéwal lu ñu indi dafa bàyyi buñ ci doon bu suba bi fi du jeex. mais mais mais lan mooy rôle am ci société bi. waaw ngéwal société bi loolu ñëpp xam nañ ko parce que ku gis El Hadj Mansour mhm. xam ni ngéwal maanaam li mu li muy defar ci société bi. Mhm. dëgg la parce que teg boo xoole Senghor dafa ñëw fekk fi Mansour Mbaye. Mansour Mbaye di nit ku baax. nit ku mën a boole. Mhm. Mansour Mbaye boole na fi ay diggante yoo xamante ni tey toog nañ ay ay at buñ tuddante. Mhm. mu fexe ba boole leen ci benn béréb. ah. mu àndandoo. Sanex Samb. waaw. ma koy nuyu de passage. ban ban Sanex. Sanex Samb Sanex. bii théâtre Cheikh waaw Cheikh Gueye waaw. dafa def geste boo xamante ni. moom doomu géwël la. parce que amu maanaam ku xool Pawlish Mbaye waaw xool Wally Seck. waaw ñoom ñaar ñun amoon fi problème. Mhm. Pawlish Mbaye peut-être nekk xale. loolu jeunesse bi. moo mhm. wax loo xamante ne après regretté na ko. Mhm. xam ni man sama mag laa doon waxal. Sanekh bu mu gisee loolu dafa jàpp loxo Pawlish. ànd ak moom yóbbu ko ba kër Wally. ba mu demee ku ne gis na rôle yu fa def. dëgg loolu mooy rôle géwél. maanaam kon géwél. kon géwél. ci li ma la ko mën a waxee ci gàttal ku dund ci kaw suuf man damay jàpp ni géwal mhm. parce que amoon tax mhm. tey yow war ngaa mën a gis lu ñagas waaw nga ñëw mhm. dox tànku jàmm dëgg la keneen ak keneen ku dul géwal war naa gis lu ñagas ñëw woote dox tànku jàmm kon géwal dafa exister kon maanaam rôle géwel ci société bi nekkul tëgg ak fecc ak taasu rek déedéet maanaam gars yi ñoo ko bëgg a jël daf ko tëgg ak taasu quoi géwal bi àddina yi baax dëgg sax mhm. communicateur traditionnel dëgg moo daan tax ñuy wax géwal mhm. communicateur comme koo xam ne day taxaw mhm. xam say maam xam fi mu say maam soqe ko fi ñu jógee mu commencé fi say maam benn étape par étape say maam jeexee loolu moo tax ñu naan géwal mais pas géwal da ngay da ngay way non d'accord yooyu yëpp ci géwal la bokk mais wax géwal comme tey ay samba jabare samba xam ni ma la ay Pa Mansour Mbaye ñooñu noonu nga xam te ne dañ daan tim nit dañuy tim nit wax ko ay maamam li ñu def ci réew mi ba ci Bekkaay Mbaye sax ba ci Bekkaay Mbaye ba ci tey suma papa muy alaaji Pape Malick Guèye waaw kañ ne xam na ko foofu laa bëggoon a ñëw nag ne ànd ak foto ci Macky Sall ku ne xam na diggante moom Macky Sall moom xaar mbay ma jàngaa ko parce que xaar mbay ma jànga ak ki ko jur ak Père Zora ñoo bokk benn baay ah bon bien sûr sama papa yaayam a ngi ne kee nga gis ne ci photo bee waaw moom ak xaar may ma jaaga ak père Zoura ñoo bokk même père bu leen jur même père kon donc tey sama papa mi dox na ay rôle yu bëri Sénégal dëgg la yoo xamante ne man am na yu ma ci xam dëgg am na yu ma ci xamul am na yu ci nit xam yoo xamante ne dox na ko Sénégal kon donc tey géwal li mu ëmb dafa bari mm-hmm. géwal dafa bari mm-hmm. donc tey maanaam tey jamono juñ toll nii. Mhm. maanaam boo de boo da ngay gis sax ponk yu dëgg tey ñu yor sax seeni milliards. waaw bu ñu demee sax ci xew. mu jaar a milliards dem ci xew. doo safe toogal jox ñëpp. doo safe doo safe. waaw soo amul géwél. doo safe waaw mais sa géwél mooy toog di wax na diw lii mhm. diw laa yaa fi def lii yaa fi waxoon lii yaa yu baax yi yaa fi ot def lii. Mhm. nit ñi lool loolu la ñuy noté. dëgg moo tax géwél c'est très important. am na léegi léegi suñ la doon bàyyi pour nga présenté wu maanaam. wax ak adduna ak ñi lay seetaan mm-hmm. yow yaay kan papa yaay maam waaw xam nga waaw après nag suñ paree nag ñu gën a ñu gën a jàll xanaa dañuy pour pour ñi la xamagul dañuy présenté waat rek waaw mais tey ñu adduna waaw maanaam yaakaar naa ne suñu tur yegg na fu yegg na fu ne yegg na fu ne mm-hmm. taala am kenn dootu ko laajteeti ci showbiz na fu ne taala am kenn dootu ko laajteeti ci ëxlu aar taala am kenn dootu ko mm-hmm. def nañ ci lu bari dëgg la aar bi ñu nekk def na ci lu bari. donc tey taala aan xam nga man suma papa ndaanaan la. dëgg la Alaaji Pape kii mooy suma baay. léegi sa sekk. mooy suma yaay. Mhm. sama yaay jërëjëf mi ci mbéy saa xëy ngalam bàyyi. dëggal li man suma bàyyi ma jàkka may si door daa ngun a xëy te làmb ci àll bi ci gaawaan. dëggal kon donc man damaa sa sap ci géwél. ci ci nday ci baay ci nday géwël ci baay man bete bete laa parce que mhm, nday mhm, mhm, mais mais mais mais mais li nga xamante ne nii tey euh, mooy sa métier mooy lan mooy tëgg wala wala am nga beneen métier bu dul tëgg waaw man tëgg mooy sama d'origine maanaam sama tëgg sabar la sabar tëgg sabar waaw mais dafa mel ni tëggatoo sabar de ma ankay ah, maa ngi sabar xam nga liñ naan aar du doy tey boo mënee tëgg sabar dara waru laa jaaxal. Mhm. sabar bokk na ci li gën a difficile ci aar. tëgg sabar waaw sabar tëgg sabar parce que dafa compliqué. tëgg mu jaar yoon tëgg mu jaar yoon. Mhm. dafa compliqué. Mhm. donc tey bi ma yàlla dimbalee ma gimmi yóbbu fekk sama kër ay sabar. sama papa nekkoon septembre major bu mat. ne tëgg lu ne ci àdduna. dem fu ne ci tëgg. ba yàlla dimbale ko ci mu dem ci ay màkk ñu bàyyi donc tey ñun tëgg sabar suñu deret la ñaareel bi mooy bi ma xam ne ni mun naa tëgg sabar mhm. ci laa ne pourquoi pas ma avancé jàng leneen waaw lu dul lu dul tëgg sabar kese tëgg sabar kese mhm. ci laa dem avancé jàng tama yi mhm. nekk ci tama yi kotuwaayu ma nag daw ma kër kenn daw ma kër kenn tama man maa ko jël def ko def ko maanaam maanaam def ko sama def ko amul mais jàngal nañ la tëggam tama kenn jàngulu non non non non musuma dem benn kër te kattama maanaam man musuma dem benn kër te kattama mhm. musu am naa nag ñu ma bëgg ñu ma ci fan mhm. parce que faanaa ci ku mel ni suma père Assane Thiam kooku sama idole la dama ko faa mhm. Samba Ndox ak ñeneen ak ñeneen ñu mel ni ñoom ñoo xamante ne ay icône lañ. waaw ci suñu ci tama yi. ca tëggam comme tey ni ngay waxee Doudou Ndiaye Rose. ci sabar. noonu ngay tuddee ñooñu ay Assane Thiam. kooku moo roi du tamakat ah, wallaahi parce que tey lu fu tax ma yegg tey ci àdduna naa mo moom moo ko fa dëgg la dëgg la parce que tey bokk na ci ñi tax ñu gën a ràññee tama ci musique Sénégal mm-hmm. kon donc mm-hmm. tey mm-hmm. maanaam ñun am nañ ay am nañ ay référence am ay am ay ñoo xamante ni war nañ leen toppandoo roy ci ñoom roy ci ñoom dëgg la parce que ñooñu bokk nañ ci ñu defar suñu aar bi. Mhm. xàll yoon bi donc mhm. sant mhm. léegi léegi après ñu jéem a ñëw ci wàllu tëggewum sabar mi nga wax. parce que dafa bëri ay magi géwél ñuy kaas. di jooy naan tëgg mi yàqu na. xale yi léegi tëggatuñ lu baax. tëggutuñ tëggu normal mhm. sabar yi forotuñ ko for mu baax mhm. xam nga maanaam mhm. mag mag ñi daal ñoom ñu ngi jooy daal di di di di di ñaawlu tamit xale yi nga xam ne ñoom ñoo yore tëgg mi tey si loxo ak ni ñuy doxalee ci wàllum tëgg mi tëgg mi jaaratul yoon tëgg mi baaxatul xale yi dafatuñ tàggu mbaar xam nga léegi lu leen sax dañuy tëgg waaw ci ci ci ci domaine yu mel noonu en tant que tëggkatu sabar yow tëgg yàquwul ah bon léegi mag ñi toog ne tëgg mi dafa yàqu maanaam ñoom bi ñu fi nekkee li ñu tombeeloon lañ doon tëgg. ah. kon jamono la bi fi nekkee. waaw li ñu tombeeloon moom lañ doon tëgg. tëgg avancé na technologie bi changé na léegi programme boo fa demee li nga tëgg Baara Mbay ceebu jëm sax tuuti lay doon li ci ëpp fecc ci xew ngay tëgg. soo ko tëggul sax dañ naan xamoo dara. ambiance ambiance. looloo xew. kon maanaam jamono la daal la déggee. waaw dama Sidi Diop. waaw wala Waly Seck. waaw walla Naajo. Mm-hmm. bu ñu taxawoon ci suur seen. Mm-hmm. di way way xaar mbay ma jaaga. waaw yu waaw wala way njaga mbay yu démb. Mm-hmm. kenn du leen dégg li xew la ñuy way adduna moo toll foofu. modd modd moo toll foofu. jamono day changé bu jamono changé da ngay xool li mu tondeel dem nañ ba léegi sabari fooratuñ leen ay der ay mbuus lañ ciy def. loolu la ma ñi di wax. voilà mi ngi noonu moo tax moo bi yi baax sabar xamul la lañ ci xamoon. waaw per beeg. mees mees. fer mhm. gu njëkk. Mhm. ak mees waaw nga foor ko. Mhm. boo ko fooree. xiire ko. xet tiir ko def première nas. toog jël say mees def deuxième nas. teg mu wow. bu woowee nga jam boo jamee. dëgg ba mu wàcc nga doogu yéegal nag der bi toog. mais loolu amatu léegi dangay dem léegi ci benn benn benn forkat ku mel ne Abdou Ndiaye mii foral booy. waaw soo demee léegi yóbbu fa dix sabar war a tëggi léegi sabaru ngoon da ngay toog léegi mu jël mbuus yi comme booy yi ñuy def. waaw for ko léegi nga tëggi léegi. bu njëkk sabar da ko daan for toog lu mat ñeenti fan juróomi fan ba mu wow nga doog a waroon a teggi par exemple samedi di nga for lundi mu xaar lundi mardi mercredi jeudi vendredi. Mhm. mais mais est ce que baaram mbay bi ak ceebu jën geeg waalo waalo beeg comme mag ñi li ñuy wax maanaam tëgg mi yàqu na maanaam tëgg mi dafa jaarutul yoon wala tëgg mi dafa normal tul parce que tamit gars yi ñu ngi tëgg baara mbay ba léegi de ñu ngi tëgg waalo waalo ñu ngi tëgg ceebu jën mais des fois nga dégg kuy baara mbay mu mel ni kuy kuy naaw kuy mburaxe mburaxe doo comprendre lan la mooy mooy li ma la wax maanaam mond la rek parce que tey soo xoolee ay arrière passé ci ginnaaw waaw boo xoolee par exemple boo xoolee ay dix ans waaw boo soolee boo solee boo solee tubéy bu rëy. waaw dañ lay ree. waw dem nañ fi ba benn jamono gars yi sol ay tubéy tuuti ñu naan. peew peew peew jamonoy peew yooyu amoon na fi. waaw ay jamono. waaw waaw bu judduwuñu. dëgg la ñu doxal ma ci kanam. gars yi indiwaat pas d'éléphant. waaw te pas d'éléphant bu muy am boobu ñun judduwuñu. dëgg la moo tax ma ne la affaire yi par mode la. dëgg la dëgg mbay bi ngay dégg nii. Mhm. moom la xale bëgg a fecc. mais ñii tëgg baara mbay ça dépend ci kiy fecc ci niveau bi muy feccee. Hmm. tey bu bu bu bu duggee. waaw moom day soxla bu dee day soxla rythme aju. parce que tey boo xoolee Pape Moussa Sonko. waaw bu duggee programme automatiquement danaan nii mu dox mu dox affaire gaaw parce que mom foofu lay fecc moom day fecc rapidité lay fecc tey nga xool tey par exemple ni mu la ko mën a joxee exemple. Hmm. nga xool tey benn fadel ñamax ñamax. waaw mu dugg programme bi wàcceel leen ma baara mbay mu dégg gars yi wàcce ko. Hmm. mu fecc foofu noonu loolu la sentir moo tax man technologie bi dafa changé dëgg mu njëkk am na ba tey parce que tey bu mag ñi toogee kilifa toog tey ñu mel ni toog yor ay sabar dinañ tëgg loo xam ne mag ñi buñ ko déggee dinañ xam ne ñii di tëgg ay ci ay mag lañ jàngee mm-hmm. kon donc tey xale yi bu ñu demee programme hmm. xale yi ñoo fa nekk hmm. dañuy bëggee hmm. dañuy xool li xale yi bëgg rek ñu ànd ceeg ñoom puso bi réeragul réeragul ok boo yaa ngi ci ok léegi ba tey ci côté comportement bi ak ak ak ak ak maanaam li ñuy wax ci deru géwél yi tamit kenn kenn mënu wax lépp daal parce que parce que lépp lépp xaju ci cin li non maanaam ñoo ngi naan géwél yi dañuy xeesal bàyyil ma waxal la ñu di rocci tuñ bàyyi ma waxal kon bisimilah maanaam xam nga lu ma waxal la loolu waaw gis nga jamono moo toll foo xam te xàmmeetoo góor ak jigéen. fi jamono toll te li ci ëpp majorité partie bi ci suñu côté aar bi la. waaw du géwël yi waaw. géwël dëgg. parce que aar bi géwël yi kese newuñu ci. dama ne géwël dëgg. waaw géwël dëgg laa wax. Mhm, pur mhm. sang. Mm. soo ko xoolee da xam ni géwël la. dëgg la. géwël day ñuul day ñuul yor teint noir bu rafet. am lu muy jomb. sangu ba set. Mhm. sëlmu ba weex nga xam ni kii teint noir la yor. dëgg la rafet bu bu bu buy tàkk. nga gis ay tuñam xam ne kii tuñu géwél la nga xam ne kii doomu géwél <laughs> dama nga xool Alaaji Mansour Mbaye waaw dama nga xool Bekaay Mbaye mm-hmm. dama nga xool Alaaji Pape Malick Gueye mm-hmm. dama nga xool ñeneen ak ñeneen ñu mel mm-hmm. nga xool seen njaboot waaw mais ñun aaru léegi dafa changé parce que li tax dafa changé mooy léegi góor ñi bu ñu fecc sax da ngay ay jigéen lay fecc dëkk la parce que dañ xeesal dañuy bënn seen i tuñ mhm. dañuy bënn bakkan waaw gis naa ñuy bënn seen bakkan ay góor ay góor seen i bakk barke alxuraan ci suñu aar bi bënn bakkan barke salaatul fatiha gis naa ay góor yu bënn seen bakkan gis naa góor yu bënn seen suufu seen suufu tuñ waaye taal lay wax ni laay gis naa góor bënn seen yéen mais yooyu jigéen ñoo def mais mais mais loo moo tax ma ni la bënn yooyu façon xeetu bënn yooyu nañ bàyyi géwal géwal xamul yooyu. kon nañuy wax artistes yi. ñu bañ voilà nañ nañ wax artistes yi. artistes yi waaw a benn affaire. waaw xoolal Mbaye Gueye Faye lu mu civilisé. waaw nga ñëw ci Bakar Seck. waaw nga xool jërëjëf civilisé. Mhm. nga ñëw ci nga ñëw par exemple ci Babacar Seck xool ni mu yiwee. dëgg la nga ñëw ci ñeneen ak ñeneen ñu mel ni ñoom nga xool ni ñu yiwee. Mhm. nga jógee ci fecckat yi. waaw ñëw ci Pape Moussa Sonko. waaw gis nga ni mu ni mu civilisé. correct correct. Mhm. nga ñëw ci Papa Ndiaye Thiou. waaw ñëw ci ba Badiane. Mhm. ñëw ci ñoom Arma Ndiaye. ba ci Ameth Thiou waaw ba ci Ameth Thiou. Mhm. ay bu ñuy fecc da ngay xam ni ñii. ay góor lañ dañuy fecc. waaw mais am na ñoo xamante ni booy fecc booy boo leen gis ñuy fecc bu ñuy weccaxu sax da ngay sax yow yow yow mi leen di tëggal sax da ngay rus. ndax si ñuy def. parce que alxuraanu karim mais ñooñu bokk ñu ci xeetu géwél de déedéet bu ñu géwél ñooñu dañoo wàlli si yaan dañoo wàlli yaan si rek ci waaw kañ waaw kañ tey ay maamam ñii seen i maam ay susu la ñuy doon wala ay joola wala ay bambara non sans caaxaan ay pëlfut wala ay pëlfut wala tukulóor mais barke alxuraan moo tax maanaam dañuy toll foo xamante ni ci aar mhm. maanaam bu ñu jël lépp naan géwul géwul géwul géwul xamul yooyu mais mais mais parce que métier mi métier mi géwél la. yow problème yàlla. <laughs> très bien. jaamu yàlla man foofu laa ne. waaw kañ. man bu óoru mhm. jaamu yàlla jotee damay jaamu yàlla. Mhm. su óoru wax lu baax jote dama koy wax. Mhm. su óoru jëf baax jotee dama koy jëf. am na loo xamante ni jombale naa ko suma bopp parce que man. xale laa mais daf kilifa laa. parce que yàlla dama teel a dénk njaboot dénk ma ay soxna ma gérer suma kër gérer suma life nekk ci suma bopp. Mhm. kon donc am na loo xamante ni maanaam jombale naa ko suma bopp te man pour man li may jombale suma bopp. Mhm. kulluhum kuy góor yàlla. war war nga ko jombale sa bopp. dëgg la dëgg la mais yow sa groupe ñi ngay faral de àndal ñoom tamit est-ce que amuñu rocc tu ñu ci sol peew ñu wala yow boo amee darmaan bu def loolu. man man benn groupe man benn groupe laa bokk. bu de groupe musique groupe naajo. bu dee groupe musique. groupe naajo laa bokk. groupe Ibro te groupe mhm. boo ko laajee dina la ko wax. Hmm. groupe naajo amul kenn ko incorrect amul groupe naajo est-ce am na ko xees sax gisuma ko ci de ñëpp a ñëpp da nga leen jàkkaarloo ñoom xam ne ñi ay góor yàlla lañ barke Seydina Mohamed. Ah, kon kon groupe naajo daal nice kër gi la maison. ok ok kër gi la maison. tey nag tey tey la tey parce que li tax ma dalal kii dafa bëri loo xamante ne nii sénégalais yi dañ koy kaas. ñun ci role bi ñu ne ci wàllum aar mi ci wàllum géwél yi yàq der bi ak ñuy wax te xamuñu ak ñi nga xamante ni dañoo jël ñëpp na ñoo yem te alors que ndox fa mu doon taa démb ak barki démb soo fa demee fekk fa taataaya parce que jëmm ji toog du ànd ak ku bon du ànd ak kuy rocci tuñ du ànd ak kuy bënn ànd kuy def lu ñaaw wala lu bon. Hmm. kon yeneen suñu yeneen nawle géwél yi nga xamante ni yeneen ñuy déglu dañuy seetaan fexe leen ba ci nekk na nga am taxawaay bu mel nii. ci ñi ngay àndal ku ci sollu correct wul nga ne wax ah sa waay dama bëgg nga sollu nice hmm. parce que fa ñu jom suñuy naw lañ fay fekk hmm. xam nga mais nag la bi mooy que ni tey da ngay gis ku tëgg mën a tëgg benn baaraam bay ceebu jën créer benn groupe boo ay Pël Fuuta ay njaago ne ñi ñooy groupe bi hmm. du dëgg léegi nag tey nekkatuñ foofu dañoo bëgg lépp di nice dañu bëgg lépp di baax euh, ñu ñu ñu ñu ñëw rek ci wàllum showbiz bi nga xamante ne nii jamono jiñ toll nii hmm. yëngal na réew mi hmm. nga nekk ci hmm. léegi premièrement li ñuy njëkk a fi ñuy njëkk a dem sax balaa ñuy dem ci showbiz bi mooy mooy mooy mooy lamb ji am nga mbër ci làmb ji n'est-ce pas am nga mbër mooy tëggal bien sûr kon kan ngay tuusal ñun daan nañ maanaam bokkoon naa ci ñu daan tuusal Modou Lo Modou Lo man Modou Lo loo mos nga ko tuusal bien bokk naa ci ñu ko daan tuusal bokk naa si ñu ko mais après par la suite man après maanaam maa of lamb quoi. ok ndax lan parce que comme maa ngi ci musique. boo ci nekkee am na loo xamante ni. Mhm. des fois nag bu ñàkk ma dem stade. Mhm. parce que su ma rakk mu ngi tëggal ay mbër. Mhm. mu ngi ñoom Anaconda. Mouhamed Mouhamed sama rakk Ahmed xam nga. waaw Ahmed parce que mooy septembre mooy septembre major. ne nii moo ko téye. ah bon parce que moo xew. bëri nay tëgg kër nag Mouhamed ak waa groupe bi. parce que bëri na tëgg kat. parcelle par ah xale yaa ngi ci parcelle de. mais moo looy wax ni barke Seydina Mohamed parcelle moo leen dàqatagu fuuf mais yenn booy ñu ngi lëmbee de barke Serigne Babacar si parcelle moo leen dàqatagu du waxuma sax parcelle ndakaaru njaay ay moromam ni mu tollool sax génération dañ koy bàyyi xel force par force mais mais ma dégg na groupe Dose ñoo téye ñoo ñoo téye gem bi non Dose ay kilifa la ñoom nekkatuñu foofu a ah, ñoom nekkatuñu foofu nekkatuñu mais Dose maanaam presque maanaam ñoom ñoo nekkaloo ci naajo parce que Cheikh Diagne suma frère mën nuyu ko de passage ak Ibou Faye ñoom ñëpp ñoom ñoo nekkoon ñoom ñoo nekk septembre. ma mais mais lan moo tax ku ku jóg ne ku jóg ne ku am xew rek ne Djibi Guissé Djibi Djibi Guissé xaw ma. waaw non mais peut-être que Djibi Guissé moom côté bi mu nekk parce que moom day day variété day boole bongo sabar clavier. Ah. yoo lay tëgg mais bu fekkee côté sabar tëgg sabar. Mhm. parcelle fii ku koy tëggul Mouhamed ngay woo. ok ok léegi nan nga gisee làmb ji ak yi ciy xew. làmb ji daal yi ciy xew dama jàpp ni du mbëri. seeni supporter la rek parce que tey mbër yi ñoo war a waxtaan ak seen supporter yi parce que man gis naa fi ay boo yoo ni bu ñuy bëri gars yi samp ay dañuy dajale ay mbooloo yoo xamante ni di këf téléphone jàmbur di waaw xamante ni naka sulul noonu mhm. man fekkee la fois passée bu ma tudd tëggal nañ fi mbër boo xamante ni gars yi bi ñuy kër bi génn fii barke alxuraanu karim kenn xamul nu mu këf saagu jàmbur yu bëri sama kanam te ñooñu seen yoon parce que li tax ma ruus mooy en tant que góor nga nekk góor yàlla ponkal waxambaane war a dem liggéeyi. daani sa doole daani sa doole. Mhm. mu leer na ni boo xëyee mën nga am journée manœuvre trois mille. waaw wala journée cinq mille. journée cinq mille weer mu dee cent cinquante mille. wallaahi journée deux mille cinq cent mu dee boo ci gëmee sa bopp. ubbi sa compte. ci tabax kër nekk sa bopp. Mhm. mën na la mën na la jural dara. wallaahi mais man lu ma mënul concevoir mooy góor dem di def naka suñu noonu bu mënul a ko moo tax maanaam làmb man damay ragal gars yi dem ba jël làmb yàq ko dinañ dem ba promoteur yi dinañ bëgg a tëgg sax maanaam maanaam loi mhm. côté loi ak maanaam côté maanaam tey ñi nga xamante ni ku mel ni président président Bassirou Diomaye. waaw waaw ak ay ñoom Sonko. Mm-hmm. Mm-hmm. maanaam damay damay wax rek. mun mm-hmm. ñu bàyyi xel. waaw mën nañ dem interdit làmb dem ba. ni làmb dañ koy interdit. bu boobaa dinañ lor ay doomu jàmbur. wala kenn du demate stade. mais dinañ koy seetaan sax da nga koy seetaan sax ci internet bi voilà mais parce que dinañ lor ay doomu jàmbur parce que tey booy mbër yi mujjee juddu amaguñ ci mbër amaguñ mhm. te dañoo war a am xaalis mhm. te xaalis mooy tey maanaam ñoom nañ waxtaan ak seen bu ñuy génn ñu génn ci fair play dem ànd ak yàlla may leen ndam ñu ñëw bu leen yàlla xañee ñu ànd ñëw defar waat après ñu nekkaat mhm. loolu loolu daal nga am looy wax ci ci mbëri quoi ci bi parce que làmb li mu ëmb dafa bari dafa bëri njaboot waaw dafa njaboot làmb dafa njaboot même bu dul làmb sax lépp ci showbiz muy way yeeg Mhm. soirée yeeg foofu laa bëgg a ñëw mais mais mais mais mais yooyu dafa dafa fees dell ci soirée yi léegi mhm. Mhm. wàllum agression moomu ngay wax wàllum nangu téléphone ay poset yooyu tamit gars yi na ñuy léegi ci soirée yi la ëppee ñu ñu ñu bëri ñu bëri euh, nangootuñoo dem ci soirée yi ndax yu mel noonu loolu loolu mu ngi am seen soirée waaw non c'est que maanaam xam nga ñun benn côté du part maanaam naajo Mm-hmm. maanaam maanaam naajo. wàllu mm-hmm. jeunesse bi la quoi. Mm-hmm. jeunesse bi dañ ko bëgg. te lu ñu naan boo njabootee di nga njaboote njaboot gu ne. di baax. njaboote ku bon njaboote ku ne. te tey soirée boo munti dem boo munti dem di nga fi gis ñoo xamante ni dañuy nekk ci naka suñu noonu boo munti dem nag naajo xale la. non du soirée yëpp nag. non bien sûr. déedéet parce que amul tax. non si parce que du soirée yëpp. non man showbiz laa ñun ñëpp ci lañ ne. tey waaw soirée Wally Seck waaw ñii dugg di baal waaw mën nañoo nekk nit ñu correct waaw mais mën na am nit ñu bon ñu leen pour bu ñu génnee ñu jéem a këf ci ah. demee soirée Sidi waaw mën nit ñu baax ñu correct ñooy baal waaw mais mën na am ñu nekk ci biti di xaar ñoo xam te ne dañuy xaar rek gars yi génn rumblement bi ñu profité waale def seen i yëf soirée bu jeex soirée naajo tamit la même chose nit ñu baax mën na ñoo baal si mais am na ñoo xam dañuy dem gaare seen moto fële di xaar soirée bi jeex. waaw mais mais nga baal ma comme nit ñu baax ñooñu ngay wax. Mm-hmm. gars yi dañoo seetlu. Mm-hmm. ne public gu naajo. Mm-hmm. Euh, moom moom ci boppam sax na ma yàlla baal. maa koy xaw a sax euh, kii. mais gars yi dañu wax ne maanaam ñi ëpp. ci ay defkat. dañoo nekk public gu naajo. ñooy dagg entrée yi. ñooy dugg ci biir. ñooy baal baal bi. ñoo koy may xaalis. waaw xamul ñooy génnaat encore di kafaat posé. wala léegi nag dama lay wax ci côté boobu tuuti. parce que fii gis nañ fi lu ne gis nga naa dem waaw dafa tombeek ñi ko bëgg bëgg ko <laughs> ñu ko bëgg bëgg ko bëgg ko xaw mais ci ban façon bëgg mais ci ban façon bëgg xam ga bëgg nit ki ak jàppale ko ci carrière am pour mu yeg fa gaa yi yegg mhm. ak bëgg nit ki tamit ba di ko lor mhm. dafa am léegi nag naajo ban façon bëgg léegi nag naajo dama lay wax benn affaire naajo ñu ko bëgg barke Seydina Muhammad day na ñu suuf mais maanaam soirée ba waaw ñi koy baal si bu ñuy baal si dañuy baal si ci fair play suñuy ñibbi dañuy ñibbi ci fair play ñoo xam ne ku ci dem ba ca yoon wa loo def yaa ko def sa defu bopp mais biir naa naajo kenn du fa kenn kenn du fa këf téléphone jàmbur kenn du fa xeex nit kenn du fa soirée nit kenn du fa def loo toj sa mbaare duy am soirée naajo na maanaam naajo ci biir soirée bi ay toj sa du fay am ay xoolal ay ponk lañ ci biir bi yoo xamante ne boo naree pétu bi lay mem nànk génn la ci biti nga xaar te buñ la videe xàmmee la dootoo dugg ci biir am na sécurité non bu doy ci biir ah mais laajal ñu fay ñëw mais ci entrée bi nag mooy mooy li ma wax tey boo demoon tey par exemple case ba kaas ba <laughs> wala nga dem croisement 22. rond-point kaas ba rond-point kaas bu ñuy buuxante pour yéeg kaas sax am na traiteur yoo xam ne ñu ngi ci biir xoola <laughs> ñu ngi ci biir pour jéem xool nan la ñuy amee téléphone wala am 5000 bu ñu rot ci sa. sa sa loolu fépp la adduna moo toll foofu loolu fépp la. Mhm. boo demee soirée am na ñoo xamante ni dugguñu. Mhm. xam la la ñuy def. Mhm. buuxante dugg am lu ñu am génnaat xaaraat buuxante dugg. foofu la ñu la gars yi moo tax maanaam. showbiz. Mhm. maanaam dafa njaboot. dëgg la li ci nekk dafa bari. Mhm. moo tax maanaam li jar a sant yàlla daal bari na. Mhm. mais sa artiste tamit am na ba tey lu ko gars yi di jëwee. waaw bari na ay artistes yu bari yoo xam ne ñoo ngi kaas. doo demee soirée na géwél yu koy kaas ay tëggkat yu koy kaas am na ay woykat yu koy naajo. waxuma de gars yi dañooy wax. mais ñooñu ma ne xanaa musuñu ñëw soirée naa la. ah gars yi na ñu day ñëw gars yi teel barke Seydina Mohamed billahi wallahi taala ñun musiciens yi mës nañ kaas loolu suñu groupe WhatsApp naajo ne ku yëg dama lay taral sama sœur ku feeg dama lay taral ñun musiciens yi dañuy dem ba dañuy sax énerge ci kaw scène bi ndax jeet dugg beeg yéeg beeg wàcc bi. ah bon barke alxuraanu karim am na ci ñoo xamante ne chaque soirée dañuy bëf chaque soirée dañoo dem ba léegi dañuy mel sax ñoom ci ci dañoo bokk ci groupe bi ndax dañuy dem ba da nga leen ràññee ci vidéo yi chaque soirée dañuy yëg bëf barke alxuraanu karim mhm. soirée naajo ni fa bëf amee gisuma ko benn soirée man barke salaatul fatiha ah kuraa ci jëmale sa kanam nag barke Serigne Baba kuraa sa kanam de soirée mm. naajo rek nga maîtriser de naajo suukaru sama café mm. xam nga naajo lan laa séex la leen mm. liggéey fay mm-hmm. fréquenté wu ma këram fréquenté wul sama kër des fois lay jékki-jékki ñëw sama kër des fois lay jékki-jékki jaar këram mais bokkuñ sax fréquentation parce que man maa ngi ci beneen maa ngi ci beneen temps mi ngi ci beneen temps. Mhm. mais dama lay wax ne la soirée barke alxuraanu karim ni muy amee bëf amul benn artiste bu koy nangu ci ci Sénégal gisuma ko. Mhm. waaw mais moom moom moom naajo ci boppam. Mhm. Euh, dañoo gis ne barki démb Sidi Diop dafa organiser lu am solo. Mhm. dox ci tànku jàmm. Mhm. sol ay dàllam dem ci kër yu bari ñu mhm. gis senit bi ku mel ne El Hadj Keita. ay ay ay ay ay ay Bastung. xam nga ba ci Sidiki ku ne ku ne gis nañ ko sëf Ibro Naajo. lu waral loolu. ah mais man de li ko waral pour man moom la engagé. moom moom la engagé yow mi bokk ci groupe bi bokk ci staff man man man amoo ci benn information bu war a tax naajo mënul dem ci yëf yi non non parce que xamul hmm. naajo naajo la tudd man taala ànd laa tudd dëgg la maanaam gis nga si euh, Ibro waaw la waral demul moom moom la am moo ko que li tax moo ko xam mooy hmm. tey Sidi Diop de passage ma koy nuyu hmm. Youssou Ndour hmm. boo ko dindee Sénégal ban daanaan moo fi am bëri na maanaam Youssou Ndour mooy roi du Sénégal la Youssou Ndour dafa dem daam ñu ko nangu am ñu ko nanguwul nag léegi nag ankay ñu ko nangul danoo soxor du ñëpp ko nangu de ñu ko nangul danoo soxor ah, mais dama la Youssou Ndour mooy roi du mbalax Sénégal hmm, hmm, ma ne Afrique am na ñeneen mais Sénégal fii moom mooy suñu roi Dembalax. Mhm. damay ñëw ci foofu. Sidi Diop dem na ba kër Youssou Ndour. dëgg la ba Youssou Ndour ba sabar ko. dëgg la te Youssou Ndour dem lan la yàq ci Zénith bi. dara. dara. yàqu fa dara. ñi mhm. ñëw ñi ñëwul yàquñ fa dara. Mhm. Zénith ba na mu war a mel mel na mu war a feesee feesee na ko. Sidi Diop def na spectacle bu am doole. donc ñi dem. yàlla boole na leen ca dem. dëgg la ñi demul. Mhm. yàlla boolewul leen ci. Mhm. kon donc maanaam man balaa meew ma ko dem balaa meew ma ko dem. Mhm. parce que zénith bi dem ñàkk a dem neex na. barke alxuraanu karim parce que naajo frère Sidi Diop la dëgg la Sidi Diop naajo la suba bu naajo nekkoon ci bànneex wala mu nekk si naqar kenn du fa njëkk Sidi Sidi bu nekkoon ci naqar kenn du ko fa njëkk kon donc tey ñoom on de des peut-être ñi dem dañoo amul empêchement ñi toogit peut-être dafa am lu tënk ba mun ñoo dem. Mhm. donc lépp ak cant si mhm. Sidy Diop ñu koy félicité. Mhm. di ko wax ni macha allah. waaw. Soriba. Soriba waaw Soriba demoon na mais dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko téye. Euh, dañ ko dañ ko dañ ko téye yëguma lool. ah yëgoo lu mel noonu yëguma ko kon garaawul jarul ñu ci xuus ñu ci xuus waaw waaw léegi léegi mu mel ni que yaa ngi bëgg yàgg ak naajo maanaam maanaam maanaam maanaam maanaam naajo kooku sama doom relation bi yàgg na. sama doom la. ah sa doom naajo ñoo ko yàq. parce que naajo bi ñu koy yàq boobu amagul sax amagul sax six ans sept ans bëgg aar. kon loolu yàgg na. yàgg na boobu maa ngi simb. naajo bi yow yàlla xam nga moo ci simb. parcelle fii bi ma fii simb boobu ñu tey doy bëri ñeme ñu fi doon. walaay yàgg na. naajo démb daan ànd ak papa Mbengue. papa Mbengue ñoom di ma wéyal samay simb ak Mhm. xam ak ak Pape Diouf Pape Diouf numéro bu njëkk ba. bu njëkk ba xamoon nga <laughs> ndem si yàlla sax. ñeneen ak ñeneen waaw donc mhm. naajo suñu naajo la. Mhm. man artiste yëpp laa seexal jàmm. Bass Thioung jaar naa ci groupe am. Sidi Diop tëggal naa ko parce que Sidi Diop bi muy doog a débuté di ay mariage ak yu demee noonu boobu mi ngi ànd ak suma jarbaat Ali Baba ma koy nuyu de passage mi ngi Amérique. donc booba maa koy tëggal tama. buñ doxee ba ci kanam après ci sama rakk mbay tama ñëw. man boobu man tamit maa si yeneen mhm. bagage affaire yi yaatu ñu mhm. yaatale partage affaire yëpp mhm. nice kon donc c'est la famille Sidy Diop dem na Zénith toj na ko macha allah ànd na ca ñu ñu war a àndal équipe Subatel yëpp ñuy ñuy te passage nag koo xamante ne kenn la muy Matar Diop Subatel mu baax ma ndax kooku musique Sénégal amuñu fayama parce que Seydina Mohamed la a tax la moo tax ngeen génn fa yéen. waaw non loolu mooy li ma la wax rek. moom moom leneen am la ko loolu leneen la d' accord. parce que li tax mu génn suba teel peut être loolu moom la. mais dama lay wax ci Matar Diop tuuti kooku bu ma ñëwee si moom damay jël benn point tuuti parce que mu tax mm-hmm. Matar Diop musique Sénégal dañ ko war a delloo njukkal parce que li tax dañ ko war a na loxo boo yu bëri. mu ngi def lu am solo nag. c' est Zénith boobu. Mm-hmm. Pape Diouf ak Wally Seck Viviane ak ñun ñëpp moo leen fa yóbbu. Baba Maal Baba Maal ñun ñëpp moo leen Mm-hmm. te xool burki Demba Ndiaye la bi muy defal Sidi Diop. wallaay pourtant boo yu bëri seen talent yu bëri na leen. Mm-hmm. yóbbu na Mandiaye Seck. ah El Hadj Keita. El Hadj Keita. Mm-hmm. Sori Ba. Sori Ba. yóbbu ci ay tiktokeur yeeg sax ñëpp la yóbbu ma xale yi mhm. di jàppale ndaw ñi dafa bëgg drapeau Sénégal dafa bëgg drapeau mhm. Sénégal ma tax mhm. du suma na defal jàmm barke Seydina Mohamed billahi wallahi taala li may wax ni dara taxul ma wax ko Matar siq nañu leneen lu bokkul ak barke yonent bi dëgg billahi wallahi tallahi ndeysaan leneen lu dul lii mais ku ku mën a Sénégal la ku mën a dooleel Sénégal la ku mën a jàppale Sénégal la Matar Diop suba teel ñu koy nuyu de passage di ko ñaanal suñu am jàmm. Mm-hmm. booy musique bii dañuy am jàmm. Mm-hmm. parce que Sidy Diop ci rêvam. Mm-hmm. man xam naa ne xelam mi ngi tëgg Bercy. incha allah man xelam. xelu Sidy Diop. dem na Bercy. mais peut-être capacité bi yegg ko fa. mais Matar Diop suba teel barke alxuraanu karim au fur et à mesure muy gën a ànd ak moom. barke yonent bi mën na koo yóbbu fudul sax Bercy. dëgg kon donc Matar macha allah laf cat. donc maanaam ñu ngi Sénégal jàmm. ma jaaree foofu tëjaale. Mhm. Hmm? Mhm. mais balaa nga tëj tamit dañuy ñëw ci ñaari point yoo xam ne. Hmm. ci diine ji la. Hmm. parce que dama dugg si amul artiste bu ñuy invité te duñ la laaj ñaari point ci diine ji. nga nekk doomu jullit. doomu géwél géwél ku dem ci diine ji saf na fa sàpp mhm. ku dem ci leneen tamit fekk fa géwél mu saf fa sàpp mhm. bu dee jàkkee jumaa yi tamit géwél yaa ci saf sàpp mhm. ñooy takk waaw ñooy takk sa yi sama papa jumaa ji ñu muy jullee moom moo moo fay nodd waaw kay wax daa déggal kon xam nga loolu léegi nag tey nga nekk nag père de famille macha allah am jabar am jaboot yaa ngi dégg léegi ma bëggoon la laaj ci diini ji tuuti rek ponk lislaam ñaata la waaw man nag am na foo xam ne ni boo ma fa bëgg <laughs> may ma tuuti rek damay ñëw maa ngi ñëw de man loo ma laaj mën naa ko tontu ndax doomu géwal la <laughs> l'essentiel mooy man ma jàpp ci ponk l'islam waaw man taala am waaw mooy jubal leeral sa tànk bu baax fonk waxtu yu juróom te bañ di dugg lu bokkul ak li suñu borom bëgg non waaw mais loolu loolu ci diine la bokk yow li nga wax ci diine la bokk mais ponk l'islam maanaam taxawaayu diine taxawaayu diine waaw ponk l'islam quoi taxawaayu diine nag boo ko bëggee xam ah soo bëggee xam taxawaay diine dangay dem seetu ku mel ni Oustaz Modou Fall wala nga dem seeti Taïb soose baa nga seeti Iran Ndaw waaye bii taala andi waaw ba tey nangul naa la ko man kay maa ngi ci sama aar waaye nag yàlla dimbali na ba nga xam ni fonk naa waxtu yu juróom maa ngi koy jox suñu borom dem maa ngi ci sant mais jàng alxuraan waa jàng naa ci li ma xam li ma li ma li ma jot jaar xam nga am na njàngum géwal du sori bu dee ci école beeg arab beeg fépp du sori léegi su ma laajee ñaari saar di nga ko wax ah. benn bi du doon sax saar benn bi du saar waaw mais ci saar la bokk waaw muy ayatu kursi yi benn bi saar la boo xam ne dañ ne ku ko benn bi saar bi dañ ne ku ko mënul di doomu jullit naa feq nga mhm. muy qul ya ayyuhal nga taril ma ko soo paree nga taril ma ayatu kursi <laughs> <laughs> gis nga kii ku doy waar ngi nii nag su man yàlla def maa dimbali. waaw su ma takkul samay verre du ma gis. <laughs> te du ma dégg yenn may ma tuuti rek <laughs> gis nga kii élément ngi nii parce que El Hadj Malick jàpp na ma otage waaye nag sant yàlla bi nga xamante ne ne man li ma rëcc lépp ci sama alxuraan te fex naa mu nekk ci samay doom parce que samay doom yóbbu naa leen daara mu nga ca daara ja di jàng. ña nga ca daara ja ñoom ñëpp di jàng macha allah ñu góor ñi kon donc maa ngi sant falaa mën a yem bu mu dugalaat fenn. Thierre bu ma dugal TikTok de <laughs> léegi santal gërëm tàggatoo sant gërëm bi mooy maanaam lii dafa neex mooy jàmm mhm. jàmm ci lu lépp xet mhm. yal na yàlla dolli jàmm a amin muy nuyu de passage suma famille ñu mhm. nuyu ñëpp waaw kenn suma famille yëpp maa ngi leen di di nuyu suma raq ah, yi. waaw ñaareel yi di nuyu suma soxla yi nga xam ne ñoom tamit ñu ngi ci kër gi. du ma dooleel. du soxla wala yaa soxla allah maa leen ñaanal jàmm ak sutura. bu ñu amee jàmm dina am jàmm. ndax ñoom jàmm jàmm jàmm mënta weesu. nga am ay soxla ñu nekk ay xale ba pare bokk ndey ak baay. kon donc maa ngi sant yàlla. di ñëpp. di nuyu suma yaay suma mhm. sëriñ mhm. ndax man sama yaay moom laa jox sama njëbal ndeysaan moom suma sëriñ yaay ju baax waaw man sama yaay moom sama sëriñ yaay ju baax yaay ju xam àdduna yaay di nuyu suma famille yëpp mhm. rawatina nag suma mag boo xam ne ñu ngi bëggal si aji faatu aji faatu muy docteur ci biir famille kooku mooy sama géer aji faatu dinaa la ko jaay sax aji faatu mooy sama géer paas ma ko ñoo bokk ndey ak baay paas ma ko dama la koy jaay waaw waaw mooy sama géer maa la wax bu xoolal moom moo ci aji faatu man mooy sama mooy sama mooy sama PDG. aywa mooy sama présidente. mooy mooy ki nga xamante ni bu ma jàqee bu ma tourné rek ci moom lay yem. ah barki sëñ Babacar Si. kon moo faral say ronga. a na man samay rangoon bi ko aji farale yàgg. ndeysaan ndeysaan moo tax yàlla ko yàlla defal jàmm. amiin mooy docteur ci biir famille. mooy bu mm-hmm. kii mu joxe ndox mi mu entré. Mm-hmm. ndax li tax mooy docteur ci biir famille mooy li góor ñi waroon na def moom moo jël engagement bi. Mm-hmm. jël lépp ànd teg ko ci loxo. lu maa koy gérer man gaynde jigéen gi moom aji faatu jigéen gu mun góor la amin amin amin amin amin mais mais président bi tamit bëgg naa nga nga lancer ma ko benn message boo xam ne si sax si sax xalaatu bopp lay jógee ba pare encore tamit am nga ñaari jarbaar yoo xam ne macha allah ñoom tamit ñu ngi ci showbiz mm-hmm. ñu ngi def lu dara jarul ci wàllu théâtre mm-hmm. mais ñoom tamit ay xale lañu mm-hmm. lan nga leen di conseil waaw mais ak xale yu toll ak ñoom di leen séefu mooy li ma la wax rek man la taala an nijaay seex yi seex yi. seexu yàlla yi nga xamante ni belle famille ñu ngi koy yëngal. waaw ñu ngi waajal lu rëy ñoom ñaar. ñu ngi yëngal mi non ñu ñoom ñoom ñaar ñoom ñaar kese. programme bu rëy boo xam ne ci kaw tali bi lañ koy defee. lan ngay wax ni. ba loolu moom na ngeen ko waaj. incha allah bu ñu paree seen tournage. Hmm. ñun fii la ñuy tëjee seen bos ndax kenn ku ci ne da ngay tëjee fii la neex. Hmm. mais ñoom ñu ngi waajal concert bu ci kaw tali leen ko waaj incha allah nga concert la boo xam ne àdduna nga koy waaj incha allah waaw incha allah bu neexee suñu borom bi mm-hmm. Mm-hmm. waaw di wax ni tamit président bi ñu koy lancé mm-hmm. maanaam suñu côté culture bi dund gi mu wàññi tamit nañu ci dooleel waaw dund gi na ko wàññi. wàññi na ko sax mi ngi a wàññi. na gën a wàññi location yi nañ ci dimbali. facture courant yi ndox yi courant yi ndox yooyu c'est important. parce que mm-hmm. yooyu mooy dundal mm-hmm. Mm-hmm. yamul. dëgg la te maanaam mën. mënoo ko. dëgg mën. keneen mënu ko. kon donc maanaam am na maanaam nañu ci dooleel ñu dooleel ko. incha allah incha allah alhamdulilah rabbil alamin ñun tam maa ngi leen di nuyu. Mhm. di kontaan ci yow yow moom sama frère. sama doomu ndax parce que yow. dafa yàgg <laughs> dafa yàgg maa ngi ñaan jàmm suñu borom bi def seen. sud na dem ba melu la Moussa amiin amiin amiin bëgg naa bëgg naa merci beaucoup frère merci beaucoup kooku Talla Anne la woon moom lañ amoon fii. suñu émission terminalu aar bi kër géwél atu ndaaraan yi ñoo ngi woon fii ci parcelle Euh, li lañ leen di wax rek saa su nekk rek ak ndaanaan bi ñu leen di wan ki ñu leen di présenté mu mel ni que émission bi jeex na dañ leen di jox rendez-vous di leen jox dig daje maa ngi nuyu nag awa yaay sama soxna wax dëgg yàlla moom tamit nekk ku baax di nuyu tamit sama sama sama DC Ousmane di nuyu tamit seex bi seex bi seex bi seex bi seex bi seex bi sang bu mag bi ñu ngi lay nuyu di la siyaar mais Thier sama caméraman bi kenn du yow ci digg réew mi loo caméra wul baaxul boo maaseel jamono bàyyi naa la nuyu ñëpp siyaar ñëpp kontaan ci ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di leen jox rendez di leen jox dig daje merci